safaru bansasin junnatun safaru bansasin junnatun safaru bansasin junnatun mbokk yi Touba gi nii Touba dëkk Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ñaari ay ay fan yu néew dox sunu diggante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 bokk yaangi waja magal a si de waw ndax dañuy seetaan li waw ndax dañuy bàyyi ndox mi mu tok ci placeu gan ñi mbokk yi lolo tax Touba ca kanam ci njiital Serigne bu Mbacké mom Serigne fallilu wo julit yep wo bokk taalibe yep fuñu mëna nek ñu xam li suñu wartef moy gan ñi di ñew te Serigne Bamba rek tax ñu dok seen yitte ngir ñew wuy ci wote bi la way mbokk yi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 تدين سيارة كبيرة وما تبين خم وسون غير للسهر سهر الخير من من دورسين تواجي تورسين منتها خادم رسول يعني الله ما ينقول يجع يجع يجع ما قال لي جنتي أنا كونين وقت تبي تقول ماي في دك بيتالو أجمع نجي أي أي أي فمي جن نسين كر تأوي في نك نخ نخ مباري لا نخ مباري خير لك نخ يالله من ودي رين الله كون بنيان يعني جن نسين كر أوي في نك تين تين il faut que ñu ñu ñëpp jaayante moo tax waa Touba ci kanam nga xam ne ñoom sàqam Sëriñ Touba lañ li ñu am mu néew mu bari dañ ko ci def mu jeex tàkk boo nag képp koo xam ne dañu woon ci tàmbali ba rek ñu bokk pas-pas na nga ñëw jàpp ñu ci liggéey bi ngir màgg gi ñëw na te suñu bokk taalibe yooyu ñu nekk ñu war a jàppale génnee ndox mi seen kër yi génne seen mbedd yi mbedd yi ñu mën ko kër yi ñi xam nañ ko necc mu set ñu jëm ko sëkkaat sëkkal leen ko jàpp leen ci ak lu mën a ab bu ñu war a dimbali rek ñu ñu ko ci képp koo xam ne yaakaar na Sëriñ Tuubaa ak fu waaye mën a yaakaaree am ci yi ñuy bëgg wax dara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 muy suñu seex jëmm yàlla yàlla yokk sa bëxe ay ay ci moom te ñaan si am di euh, amudu mbenn mi nga xam ne moo fi toog yàlla guddoo ak fanam te may ko wér ñaan suñu yaay bopp suñu seex njaay meeg nga xam ne moo fi wut suñu maam suñu wut Moussa Fall sama borom yàggal ko digëral ko ma kàddu yooyu ñu ko teg ci wax si Moussa Mbar mu teg ko ci wax suñu Fall mu jàll ko fu mu war a jàll ñëpp kon nag bis baa ngi noonu suñu bis ak ñun Baye Fall baax a baax a baax ci ci ci sëkk ba euh, man ko ndox ma lépp bale ngeen ba set nag li gis na mooy mu jeex ñu ñu ñu ñu fuñ maa nekk ci nekk maa ngi woo àdduna sépp waaye waaye nekk rek tey ñaan kàddu yi fekk nañ jàmm ñaan yàlla ñu tase tawfeex sëriñ bi bi nangoo sunu euh, jëf ndax dimbali si mbokkum jullit jullit bi soxla nga dimbali ko moo gën àdduna ci biiram euh, am na fi den waar doon nett ñëpp def nañ man nag waaye nag àdduna moom yàlla bindee nii rek te euh, jamono am na yoo xam bu ko yàq bu nekk su borom wa taala